kulli sayrin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada moonin anin nafar haditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man luwu ubtu bi safar salaatun wa tasliimun maal biis wi sarmadan ala man bi muksimal amni wal bashar ñu ngi sant suñu borom bu baax te lépp lu mu def ci barab bi rek ñaanu sëñ Mountakha mi sëñ Touba muy donc ñaanu sëñ Touba di ñaanu njabootu sëñ Sidi bi du uti ci leneen mooy ko sëñ Cheikh Ndiaye bi toog fii loolu daf ko wax insister ndaxte xam na ne tey jii euh, li mu am sax ci Ecotra xam ne lépp nee na sëñ Sidi mag Abdoulaye Sylla nee na lépp lu mu am tey sëñ Sidi la hmm. donc sëñ Moustapha donc sëñ Touba ñu ko toppee ci yoon bi nee na lépp ci loxo yi sëñ Cheikh bi la jaar nee metti woon na trop ba ci weer ñu génn ba ci at yi ñu génn mais sëñ Cheikh bu su ko fàtte lu mu guddi guddi lu mu xat xat xat xat